coppiteek jaww ji doon luy teel ONG Action solidaire internationale ASI loole moo waral mu daal di tàggat ñi nga xamante ne bi ay élus locaux lañu fii ci senegal ngir ñu dugal seen loxo ci xeex bi ci bile ndaje doon ci lancé réseau national des élus locaux ci wàllu justice climatique ci talaata gi muy ndaje bi nga xam ne ñi ñu fal ci bokk moomeel yi taxaw nañu temm ngir dugal seen loxo ci lu ni mel. yàlla def ñun ñoo gën a jege askan yooyu ay association un peu partout donc ñooñu la ñuy won carrément ni kenn ku nekk am na loo war a def kenn ku nekk am na loo war a contribuer. su ko ñëpp comprendre noonu day yomb donc lu waroon biis pour benn nit su ko ay nit yu bëree partagé day oyof donc vision boobu la ñu am te ñun gëm nañu ni affaire bi war na mën a dem parce que kenn ku nekk war na mun a gis boppam parce que sa ëllëg dafa lié ci affaire changement climatique bi. lu ñu wax moyen bu leen di xalaat toujours affaire xaalis moyen mooy d'abord lan ku am détermination moyen mooy lan ku xam lu mu bëgg soo xamee li nga bëgg nga am détermination am lu a jaaxal te ñun joxe nañu exemple bi. suñu jigéen yi suñu jeunes yi di développer ay forêt de mangrove en Casamance kenn fayu leen reboisement politique reboisement bu fay am kenn fayu leen et pourtant tey ñu ngi koy régler donc le premier moyen engagement kese la te engagement bu defoo ko pour man defoo ko pour keneen sa bopp nga ko defal te bu ko ñëpp comprendre noonu incha allah donc le problème de moyen est réglé merci ngir yàgg ci ca cappaandaw li ONG Action Solidaire Internationale di sàkku ci élus yi ngir ñu gën a dugal seen loxo ci xeex bi. li ko waral nag jógun jóg rek euh, organiser lii dafa am fuñ jaar am yoon woo xam ne euh, ñu ngi ko commencé mun na ne depuis bi euh, at bi teroo ñu nekk ci nekk ci mu mu mu processus boobu nag. dimbali ñu ñu ñu dem ci gox yu yu yu fas seen ko ci Sénégal waxtaan ceek ñoom ba nga xam ne moo ñu indi fii tey ñoom ñëpp ñu daje fii tey pour euh, teg kuréel bi nga xam ne tey euh, moom moom moom la ñu tuddee réseau national des élus locaux. waaw liñ ciy xaar euh, lii la rek parce que comme xam ngeen ne changement climatique tey dafa nekk situation boo xam ne tey bàyyiwuñ ko rek état yi nu ko rek benn parti mais tey ñëpp lañu ñoo ci bo ñoo ci ñoo bokk yéen. ñëpp ci war a indi seen seen seen seen effort pour xeex ko maanaam ñëpp ci am wàll ci loolu ñu xam ne tey. Euh, ci catégorie yi nga xam ne tey acteurs yi nga xam ne ñoo nekk fii ci réew mi am na ñoo xam ne ñu am solo lan mooy ay locaux yi ay locaux yi na ne tey ci xeex bi nga xam ne ñu koy xeex changement climatique ak li nga xam ne ñu ngi koy xaar euh, ci loolu bokk nañ jàpp nañ ne ñoom bokk nañ ci euh, maanaam acteurs yi nga xam ne ñoo ci gën a ëpp solo à partir de ce ñun ONG Action solidaire internationale ñu fas yéene liggéey ak ñoom te jàpp ne tey lii nga xam ne ay stratégie la yoo xam ne nguur bi développé na ko gouvernement bi ay politique yoo xam ne yëpp dafa jëm ci wàllu woowu donc jàpp na ne xëy na élus locaux yi tey leen joxee outils yi war gën leen ñax ci mbir mi maanaam jàppale leen maanaam dinañ gën a dinañ dina am taxawaay bi nga xam ne tey dina yombal dina yombal liggéey bi. lëkkaloo gi dox ci ñii ñu tabb ci gox yee goxaat yi ak itam société civile bi doon na luy firndeel bëgg-bëgg jëm ci xeex coppiteek jaww ji te itam bu ci ñëpp dugalee seen loxo daañu yegg ca la ñu jëm.